jërë ngeen jëf gars yi maa ngi leen di jaare waat encore une fois delloowaat leen ziare waaye di dëkk si di leen ziare di leen wax li ma leen daan wax rek mooy abonné leen gars yi abonné leen YouTube moolut ñun dañuy def tout di dagg suñ temps di def lu ne ay recherche lu nekk ñëw pour andi leen ay information mais xam rek parfois ñu bëgg a jox leen information ba jël vidéo yi nga xam ne moom la suñu jour yi di def te gars dañ koy protéger. parfois di ko dugal gars yi ñu looloo yàqoon chaîne bi bañ commencé waat nii kon nag pour ngeen jàpp si rek lenn la rek mooy bés leen touche abonné abonné leen abonné leen boo leen abonné mun nañ àgg fañ àggoon ñu gën a sawar ci wuti ji information bi di leen ko andi mais bu leen fàtte di like ah like leen like gars yi communauté bi ñun ñun mooy loolu yàllaa ñu boole. en fait gars yi tey waxtaan bi li ñuy andi mooy benn nouvelle boo xam ne yaakaar naa ne dina neex ñu bëree bare bare bëri dina neex ñu bare bare pourquoi parce que ki ñu gis ni gis ngeen ni gis boobu ba léegi yaayam sénégalais la te yaayam fii la dëkk fii surtout fii la dëkk ci Dakar ko moom mi ñëw na fii ci Sénégal ba taay xam na dëkk bi ba taay xam na fii ba taay information bi nag fañ ko jëlee fu wër a wër a wër a wër a wër a muy défenseur Liverpool bii ngeen ni jàkkaar lool voilà léegi gars yi euh, dëgg la moom nag euh, am na possibilité pour ñëw fi nga xam ne mooy équipe nationale bu Sénégal am na ko parce que yaayam sénégalais la papaam nag malien la am na aussi tamit euh, possibilité dem footballi Mali waaye am naa yaakaar ne jamono yi bii nationaux boo xam ne si ni da ngay choisir si Afrique boo bokkee ci Sénégal leneen loo gis da nga ko bàyyi ñëw fi nga xam ne moom mooy équipe nationale bu Sénégal la moo tax ma wax loolu mooy que sunu niveau bi ñu toll ak sunu de jour yi nga xam ne si lañ toll moom nag kaa xaw na critique tuuti par parce que ñu bëri ñu ngi koy xaar France français yu bëri tamit ñu ngi am yaakaar ci moom waaye gisoon nañ fi kaaw Kalidou Koulibaly te kaaw Kalidou Koulibaly boo xoolee moo gënoon a critique kaawam foofu tax Kalidou Koulibaly la français yi gënoon a yaakaar waaye teewul mu choisir dëkk bi nga xam ne mooy terre nataalam ah kii nag Ibrahima nag boo xoolee ah moom bañul Sénégal parce que. Euh, ci ay ay recherche yi ñu doon def ci ay gëstu yu bëri ñoo naa vu que ne moom ak saajo maane dañoo am affinité bu rëy rëy rëy ñoom ñaar sax ñoom ñooy ànd di julli ji ñooy ànd di defandoo lu bëree bëri te ñu ngi koy seetaan moom mu ne euh, source d'inspiration Sadio maane la mu ne Sadio Mané fii nga xam ne moom la àgg si nii tey da koo liggéey da koy liggéey liggéey la liggéey moo ko may fi mu def moo tax moom lu mu liggéey rek en tant que xale boo xam ne vingt-deux ans la am lu liggéey da bu xoolee fi Sadio Mané àgg rek moom day ñaan yàlla àgg ko comme nag dem na bay jël euh, tiire ay référence ci nga xam ne ñoom ñooy dëkku yaayam ji ñaan na yàlla kon euh, suturaal yaayam waaye ñaan na yaayam dem ñaan na yàlla dem euh, représenté ji yaayam mu nekk cas boo xam ne daañ leen ko toppal bu baax a baax a baax a baax a baax di wax tamit Jürgen Klopp ñu ngi ko ci remercier tax toujours mon may sens boy bi mu kay pousser way mu kay gëna orienter orienté ci dans le bon sens gaay nak la motax ka bi tay ñu xey wax ci moy que deug la sunu défense bi machallah allah am nañ Abdou Diallo way am nañ tamit Kalidou Koulibaly ak Moussa Niakhaté bi nga xam ne am nañ yaakaar ne dina ñëw waye tamit euh, coupe du monde ku fa jëm da ngay préparer ku fa jëm da ngay am ay plan B yu baax a baax a baax baax te mom am naa yaakaar ne euh, plan B euh, ci la. tey koo ko aligné woon ak Koulibaly am naa yaakaar ne euh, xel yu bare bare bare dina dal nga jël ko yóbbu ko euh, kii di Abdou Diallo nga yóbbu ko latéral gauche donc gars waxtaan bi loolu la woon tey information bi loolu la woon ngeen ñëw ci seen xalaat fii nga xam ne mooy ci euh, commentaire yi est-ce que am ngeen yaakaar booy bi ñëw fii football Sénégal est-ce que am ngeen euh, yaakaar ne yaayam dina ci gën a jàpp pour mu ñëw football Sénégal waaye tey loo leen xaar ci Sadio Mané pour mu gën ko pousser mu ñëw fii nga xam ne mooy équipe nationale bu Sénégal donc gars yi fii la ñuy yem ak yéen di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen dossier di leen wax nii la rek abone leen ngeen jàpp si abonné bu baax baax a baax ñun toujours ñu ngi dem di uti ji ay recherche ñu ngi dem di uti ji eh, yu bare bare pour ñu ñëw ànd ceeg yéen ñëw saafoonteeg yéen waaye jox leen ko bu baax a baax gars yi c'est top c'est parti ñu dem ci commentaire yi let's go